yii xanaa da nga koo fàtte ah. yan yére. léegi la ma Abibatu naan ma sa yére yi kii da ko fàtte ndaama pour nga fóot ko. jëlal yére yi. nga ne. du moom jabar la may jabar. waaw ah, man fóotu ma yóbbu jox ko mu fóot. Euh, ndaama sa nekk ci kër gi nang ko xoolaat de. xam nga lu Abibatu wax. Ah. nee na mën nga fee ne. waaye ci kaw nga féetewoo duus bi di ko raxas boole ceeg ëtt beeg togg yekk moom mu féetewoo ay. xolli nan ak yengal café ak yoy lolu la bëgg ngir yalla défal ko lolu moy tax nga mëna a ne ci kër gi. yow Diop fal ko yapp yow kan nga yapp la lay laaj ah wax ga dëgg. yow ay ma ne nga dimbali ma la la wax ay beesi loxo. waaw abi ba Abibatu bëggul ciow ma lo sama yoon da cee ne. ndaa ma fii du caamen de. nga di bu ma toogee ci yow ba ndëk ni si waxi do dong ma ba ci yow. waaye bu doon man ak yow dong kon ba tay dem nga ma dem. wajur ya dem xira bu ñu la xira nak loolu la waxon lu ma waxoon xanaa mat sëy ci yow ba nga ma. booba nga ma a toog caamen di fa sëy. eh waay Samba yow bu ma toogee caamen loo ma fa defal. xam nga lu mu bëgg a xam da ngay. lan nga ma defal caamen laa lay laaj. lu ma juróomi bant. waay jëlal waay. yow sa waa jox ma caabi robinet bi. ban tey ngay xam ne lépp dëgg la dootoo ko defaat lii. xamoo sa xetu poqotaan yow. yow xam la mbaa Ayda Ndiongo Ndiaye moom moo xamul xetu poqotaanam. man lijjantiwuma sax aw turam. du photo yére yi. photo ma waa na nga wax ndànk. nu ma neex laay waxee nu ma neex laay waxee. waaye bu ma mer yow. Eh. xam ca kaw laay wax. mooy yow munoo yu man maa la yilif koo yilif man maa ku dul yow sax ko yilif. booba nga matadi. booba nga matadi ne borom kër gu ñuy dab di ñend. yow sa lam ñu ñaaw nga yor. maa ngi toog di xaar di nga ci caabi robinet bi léegi jox man ponkal mu wóolu doole ba ngi nii. laay laaw benn bu dem beneen dikk. fóot rek maa mën a fóot man. ponkal mu wóolu doole ma ngi nii. gis nga leen de naa xamal. maa ngi xaar caabi ji naa ci jot ci force. waaye boo nga xamante ne di nga xaar ba déwén ndax caabi ji maa ko yor robinet bi a mën a ubbi te duma ko ubbi. toog fii di xaar dinaa root tey maa ngi toog dina leer. loo bax ma ñeer faalewu ma la. njàddari gii nga namoon dina leen teg man maa ngi toog dina xaar man maa nijaay yaa yiis amoo leen loo namm ci man lu dul ne daaj sama digg bopp beeg sa fonde su si eh xoolal léegi damay toj solo bon ah dégg nga la wax yaa xamadi ndaamaa jël caabi robinet bi tëj ko ma bëgg a fóot nee na kaay mën nga maa damate kaay damate ma yow da ngay tooñ bu du waxee ngay ëppal di jaay fit bu rëy caabi naa ci jot wala ma ñaf lay compte dindi say bëñ maa wax man. kaay dindi. <laughs> ni jaay dóoral kanam ak ngi dóoral. dóoraatal yow waxuma ak yow ma. boo dóoree dina mel ni nga futteeku yaramu neen di bomb sa yaram ci miiru yi. caabi ji na la wóor ne tey moom dooti ci robinet bi ndax du ñu tàngal ndogu du ñu naan bisaab te boo moytu naa la rey yow ci kër gi. kaay ni jaay am ni jaay reyal du da ngaa xiif ndawal rek am <laughs> yow gore jaameen nga. xoolal yow eh yaa ngi may offensé de dégg nga li ma la wax. damaa yor sama self défense de nijaay kaay ñëwal léegi léegi léegi nga xool maa ngi yow kan mooy ndogu ji. seytaane bi nga doon ndaa ma fi nga may fekk tey de. ngay mel ni mbokkatu suuf nii yow. yow moom bala maa gëm ne amul lu na ci yow di laaj ngay tontu bala maa gëm ne amul na sa biir yow di wax ak yow. ah yaa tey. fekkee yow xoolal waxuma ak yow. te yow da ngay tooñ ba pare bu nu waxee nga yor sa làmmiñ rek di kebatu. ana jonga ma ñu ñëw ci kër nu fat la di la dimbali ngay jël caabi robinet di téye ko téye ah? ma yaa ma ma waxuma ak yow dellu siil ci yaa rek rek rek. benn di nga ca ci nii wala nga dellu ca canaan maa la ko wax. de man doomu sa yére du set rëbb di tëj xanaa neex na. waaw lii dum doon lu xew lu xew da ñun la ah ñun dégg nañu ñun dégg nañ dafa da Jóob lim la wax lim la wax lépp dégg nañ ko dégg nañ ko fii lañ taxawoon di ko déglu même même démb na bi ngeen waxtaan fii def déglu nañu déglu nañ Tonton Jóob lim la waxoon noonu yëpp ñun gis nañ Tonton Jóob mu ngi la jural ay njabootu kanaara ba pare daal koy bàyyi police dëkk bi ñu ànd la fii topp taw la ba pare mu lay fóotloo nii ba pare di la tooxal ni di la di la def yu bon yoo xam ne tante <laughs> yow daal jàppale sa naqar ak suñu naqar boole ko mu nekk benn naqar ñu ngi sa ginnaaw tante li sama cousine bi yëpp wax dëgg la non si ta ñees on dit ma ñees waaw li sama ñees bi yëpp wax dëgg la jàppale kanaari bi nga bàyyi ci dëkk ba bu jigéen baa ngi nii bu góor baa ngi nii dinañ balal dinañ raxas dinañ toog dinañ foot loo bëgg rek dinañ la ko de togg gi moom mën naa ko. soo bëggee mën nañ la ko defal mën nañ laa passé ba nga kontaan. yal na yàlla fay ñu baax ngeen. nii ngeen ko xamee de bu bu ko xamee woon noonu. kon billaahi duñu yegg si fii. xanaa bon daa Diop daf maa daf maa jaaxal. Diop léegi daa changé. moone ba min ne ca dëkk ba de ak tengaa doom la daan sol. yor ab ileeram di bay. waaye fi mu ne nii Diop beneen Diop la. léegi da tante ay pain yu wow kong kong kong lay def. pain yu wow kong maa ci teg sama bët. ok <laughs> on met paquet bi paquet lu mu doon. à entendeur salam ambar jawaar wa. ñoom nag doy war way nak ñu baax lanu nak no bax góor gi yaay borom sama tante jawaar wa. lo li gay du ya ko fon jom rew rew mi ñoy borom jambar jawaar wa. dooni gay du yàq moom ñaq jariñu kër gi yaay borome salamu aleykum